Appartement de Loufegel, Loufegel. Appartement de Loufegel. Ni fay ñu gëna mus ñop Ndey ñay fakine Ya ah ah ah ah. Dañu foog ne ñoo gën mus ñop Ndey ñay fucking ñun dañoo sonn ci sensibilisation bi lii moom xaar xaar dara laa takkatu dara takkatu ma xam nga man li ma jaaxal sax audio yu xonk yi moom maa ci du liirati benn maa ci du liirati benn supprimer lépp laay def maa ci du liirati benn parce que man li ma gën a jaaxal mooy gisuma suñu dëkkandoo bu mu daal gisuma. kenn ku ne sama mbokku feebar na xam nga lii laaj na def taxaw seetlu dee la wala ndeyka ndey yàlla lay xam nga lu ma bëgg nga filmé ma ma wax ak nit ñi. vidéo vidéo anniversaire la anniversaire anniversaire may démentir nga naan anniversaire. looy démentir ni nga. xam nga problème bi mooy ndey amoo seetlu. yow kañ nga gis kuñ ne ci koñ bi kii feebar na. feebar na Thiès déggoo wax leen ni amul parce que xamoo ñun liñ fi nekk yëpp nga gis ku ne feebar na fi ak ñun ni ñuy dem leen teg dikk leen teg. maa ngi xool ba xam da ngaa foofu looy naan wala looy tux. yow nit yaay yow nit nga yow feebar bi ngay jiixi jaax ba xam am naan amul. da ngaa gis ko mu daal. yow nit yaay nag. ah yow ni yaa ngi may bëgg a jaaxal de. yow télé bi tooguñu chaque jour di seetaanandoo. waa léegi nga gis dëkk yi mu am. ba ñëw ba suñu réew bii ministre bi di taxaw chaque dix heures di wax yow loolu yëpp doy la. yooyu yëpp gis naa ko gis naa ko mais man gisee bu ma dëkkandoo bu mu daal. mais yow nag ni waaye kii nit la. ni yaa ngi may bëgg a jaaxal. mag nga de am na yenn yoo xam ne waroo koo def de. moom mu naan defal vidéo.

moo tax def lu baax baax parce que boo defee lu baax koo romb doo sëgg mais boo defee lu bon di nga rus a sa kër mais wax ji du loolu Fatou Kiné foog mu xam man bàyyi naa mu set foog mu xam ni bàyyi naa mu set sinon dammel dina am victoire sama kaw te loolu sama defet la. nijaay nijaay nijaay nijaay. yow magum jëm bu toll ni yow ngay yéex a ba xam feebar bi am naam am. yaa gis ku mu dal fii. waaye nijaay du ñooy toggandoo chaque jour du seetaan télé. léegi. gisoo li mu daan lépp ak ña fa mu ñëw ba suñu réew mi ñaata moor la am du hmm. cinq ana suñu Pape Diouf international. ak ah, nee moo ko yóbbu de. waaw ba ci kër cinquième moor bu ñu am fan la dëkk du Kër Massar. xam man moom gëj naa Dakar Kër Masar la <laughs> doo fa dem ndax dañoo tëj lépp dem amatul dikk amatul nijaay mag nga yow heure bi xam nga loo waroon def. nga génn ci mbedd mi ku takkul masque nga jëndal ko ko ku raxasul loxoom wala ku yorul gel bi nga lijjanti ko fexe ba ñoom ñëpp ñu respecté li li ñu wax du dëgg. baab naa ko wàcc na amul problème foofu moom sedd na quoi mais da ngay moom dil daa bëri wax dañuy dem ba ci biir affaire bi neex muy yureeku foofu du baax booy mbër bi booy mbër bi solution la booy mbër bi dina ko maîtriser tàppet la laale na ñu amul fit ok je pense que foofooy nooy mbir bi moko ko dina ma defal li ma bëgg té amul fi. jaay ministre bi nee nañu respecté cinq barrières benn bi moy distance bi. comme niñu togué ni kon xam nga lool lool xam la deuxième bi ban la. deuxième bi ñu né mouchoir bo ñando def ko ni dugal ko ci poubelle. kon dafo loo kan nga naan dafoo. non masque troisième masque seen quatre quatrième bi. boo amul matt booy sëqat nga xaw ma ci sóor xaw ma nga def lii. léegi cinquième bi ñuy raxasu ba set wicc gën a yokk suñu set. ak suñu sel yooyu li nga wax lu baax la def nañ ko. nañ ko lii wax nañ ñu ngi def sax ay six am na ñoo xam ñu ngi dem ba ca kaw fii la ñuy raxase fii la ñuy yemloo parce que moom bu doon set set rek ah waaw waaw ma yaa dina yokk set gi ak set nañ moom set nañ moom. kon nag nijaay lii lu am la de. nii nga ko xam te grave te li ci gën a garaaw mooy cas communautaire yi. wala ndey xaana xam nga problème bi mooy Thiès Thiès région la. Mm-hmm. commune moom xam naa ne ay Morolan Fandène foofay commune. <laughs> Ndiaye loolu du loolu cas communautaire xam nga mooy lan. Mm. ki nga xam ne mi ngi jàngoro bi. waaw te xamul ku ko wàll. ndey ka la ndax lii dañu bëri xamuñu ko. te xam nga looloo gën a grave. moo tax fi toll nii dañoo jël décision ferme ci masque yi. lii nga sànni léegi. sànniwu ma ko kay. dee ko takk booy génn te takk ko day dal saka kaw. ah loolu kay wax xam nga ñun sax la gëna bon ñun ñi fa jaar ba pare ba xam ni mu démé mi ngi nonu nak ni jaay li nga bëggoon nak ma def la ko pour filmer la ni gis nga mo la filmer woo. ba duggal ko. dañ lay jël ci si la lam yóbbu la ndax ñiko fi defo ñëpp naan feebar bi am na am dañ leena wo bo boo bëggee tamit ma filmer la ni ndey ndey bu falaas tak sama kanam bultal bultal bultal <laughs> ta do fo ne bu dee filmé daal fekkee mën nga maa filmé ma répété lii nga ma wax ma filmé ma wax baax na mën naa ko. loolu moom bu dee loolu la kii. xale yi ñu gën a toog seen kër. resté chez vous bi kon loolu la. waaw respecté cinq barrières. cinq barrières. xam nga barrières yi ñi ko xam bariwul ñëpp ay semaine affaire lañ ko yaakaar mooy barrières yi nekk foofu ñoo la wax leen par rapport na. aja xaaral ma teg ko wax ko. ñoo gën a mus ñëpp. ndey jaay fàkki ne yaa ah, ah. moo gën a muus ñëpp ndey la leneen loolu rek laa la nga defal ma ko. si c'est possible tu me dis oui. non possible. mën na nekk mën na nekk grand parce que confiance bi nga ma jox nii man boobu laa manqué woon grand grand man football naa aw ci confiance basket confiance ñëwul handball confiance ñëwul bes bool grand def na sax bay def rugby dara baaxul tay nga ñew am ci man confiance grand man dal instant yii nii ah, rek la gis quoi ak be ci confiance bi nga am ci man. Ah, ma defal ki vidéo anniversaire sax. Happy birthday to you, long be sante prosperity. ndeysaan ñëw di sa doole ñu isala la dëj la sambur furaato birthday toppe woo ni malaaka ñi dar men daraawo mu doon ni démb mere naa la de yow ci boor reer bi sama euh, nijaay euh, ñëw toog rek nga jóg suur kon yow la ça va danga rek ça va très bien bon nijaay ndey jaay naa lu set man xamoon naa ni di nga détecté fii du dégg yow rek laa doon xaar ñëpp ñëw nañ jàll waaye yow doo fi dugg loolu leer na la. léegi nii yàlla lan moo tax dugg. xam nga tax doo fi dugg yow même bu dul dara sax nit ku bon nga waaw mën nekk ak Ndeye Ndiaye téyeeg moom am ak moom problème ñu ne ci karti dina duggam du dugg dina delloom du dellu ba ñu toll ci négociation nga wëlbati ko ne ko fa ñu ko dem jël xaritam. affaire jiib yooyu dund dund vampire yi nga xamante ni yéen a koy dund mun leen di xool loolu nit da ngay def jëf ju baax li ci koy mala la mala mooy sëy yeneen mala yi du xam ban la ci bokkal ak bu mu ci bokkalul mais nan nga mën a gën ak jaay dem xëcc xaritu ndey jaay xam nga yéenay jaxase diggante yi neexu ba neexul nag mais yéen yéenay jaxase diggante yi. booy naa la xamal gis nga confiance bi mu am ci lu ne xëy na ci. lu leer naa la gis nga da koy mën a assurer. mu mat. waaw bu ci am benn li ma wax ak yow ma def mais boo ko assuré wul wala ma dégg ni seen na fenn am naa ay punkal hmm? yu may fay te mën naa ko lijjanti sans boobu wax dootoo ko def sa làmb ñi kaw bi la ñuy dagg bi ci kaw. Oh, grand loolu du non dama lay wax rek dama lay wax pour wax la ne lii kafuma ci réew ma ci confiance nga bëgg jox naa la confiance confiance nag dañ koy mérité. bilaay assuré ko. non loolu bu ci am ben problème nga parce que instant yi man dama bég tay ma ngi doog a xool. booy sa bég bi li man intéressé wu ma li ma intéressé moy li ma la sant nga defal mako dang koy def ok assurer ko bok assurer wul li gëna ndaw ci yow moy mum ouais li imagine mum mo grand sama mum ah grand waaye c'est ngeen teg. gis nga sa ya? nijaay daf ma togn te man duma tricher gis nga lu nekk sama xol bi day feñ sama kanam gi mën naa kaa nangul lu nekk nag ba mu des di fu ñàkk fayda yi muy def nekk ci mbedd mi lu doxaan ay xale yu ndaw man loolu duma ko nangu. waaye nijaay yow umpaay loolu bu mu gis nga boo lekk moom mi ngi lekk ba suude duñu dundam nga góor ñi ñoom ñëpp jaruñoo ñàkk a lekkal lekkal ba suur naan màndi même bu dul dara sax nga xool ci lii nga ëmb yow it stress bi baaxul ci moom umpaañ del lekk sama nijaay bu mu la xañ àdduna dëgg la li mu def waru koo def ndax magum dëmm la waru koo def ñaaw na torop waaye yow daal li ma lay wax mooy bul stressé bul teg sa doom ji dara naqar bu ko teg wax naa la ko de man de loolu laa am si lu ma lay wax. gis nga man day gis nga sa nijaay bu dëgg rek dee dëgg ba ñu nekkee dëgg ba melu woon nii moom kay xanaa daa ñëw ba fii indi coppi gu rëy a rëy rëy mais gis nga dëkk ba lii muy def fii yëpp daaw ko fa def. changé daaw ko fa def de. loolu moom dëgg la waaye umpaañ. Hmm, ok waaw. Euh, lii du fi lu bees quoi kër gi moom di bàyyi seen bàyyi. nga bari wax. ok ba tey. loolu yow dal jaay. Mhm. Euh, yow wax lu ma saf. ndeysaan xam nga tax. waaw parce que maa Orside tey nga ma ko mën a wax ni ma Orside laa gis Ndeye Ndiaye. ok yow nag Orside xamoo ci dara ndax mu soo am saay dangay ngay toppee rek. Euh, li ma lay wax mooy. Mhm. Ndeye Ndiaye. waaw soxloo mu koo gis. sama wax ci moom na yegg ci moom te yow yaa koy yeggale parce que su ma bëggoon gis Ndeye Ndiaye. waaw damay ubbi bunt bi dugg dóor la ko. gis Ndeye Ndiaye wax ko li ma koy wax pare génn mais yow taxoo maa jóg. xam nga xajuma ci yow. livraison en domicile tijjil naa la ko wuy ba foo sarti ni ku mën naa dugg rek duggal daal xam cek naa wop koo fata koo xaasa bu gino rek bot kin foog ne séeréer sim naa nun de gaa yi nga dóor dóor rek sama nijaay moom jikkoom mënoo koo changé mën naa li ma lay digal mooy nga dem dëkk ba xëy na boo fa demee déggante rek ngeen di déggante rek defee dootu fa amati benn problème nga nekk ci jàmm du dëgg dëkk ba waaw man de loolu laa lay conseillé boo demee xale yi dinañ la may moral bu defee sax yow di jéem a kii tuuti mais yaa ngi fi nekk boobu ba léegi yéen ñaa xuloo guddi xuloo bëccëg delluwaatal dëkk ba man ne loolu laa lay wax. dellu dëkk ba moom du lu may mën tey du lu may mën suba xanaa kay lenn mooy am man moom ñu àndandoo dellu dëkk ba waaye gis nga fii mi ngi fii fii laa naan réex toog du ma fi bouger centimètre. Ah. yaa ngi may dégg gis nga dëkk ba am na lekk am na naan macha allah dara manqué wu fa waaye nag mënuma faa toog. sama jëkkër nekk fii ma toog fay stressé du ma ko nangu sama jëkkër fu mu ne fa laay toog. ba fekk tàppet bu tiitee nag yaayam day daaw. kuy tàppet naa la juggal. li ma lay wax lu leer ne boobu ngay wax mooy Aïda ëmbal naa ko. mu xam nga àdduna bi yàqu na kii ëmbal lay manifester ak li ci yàlla wax àdduna déedéet kii man maa déggul li mu wax boo demee Ndeye Ndiaye copine am boobu Aïda ëmbal naa ko ëmbal lay manifester man dama xam ne léegi Sénégal lan moo tax ñu jël lu bon. di ko di ko manifester ëmbal ëmbal téeméeri yat ñu lay xaar moom ngay manifester wu. ay eh waaye sutura nag ndax dëgg yàlla amatu fi parce que man damaa xamul ni ñu yàlla suturaalee suñu biir ak butit yi te nekk la muy xasaw xasaw yàlla ëmbal nañu ko ba ñuy rombante te du xëy kii ëmbal di ko manifester wu ak li koy xaar téeméeri yat andoo ah kii waxul loolu déedéet du ëmbal xaar. waaye yow ma toog foofu moo gën lii nga nekkee fii bay bàyyi ma toog fii rek moo ma gën a. dëkk ba moom doo fa dellu fii xanaa man ak moom ñu àndandoo dem. waaye xale yaa ngi xaar demal rek. moo gën nday dew ma de gis nga yéen faaw ngeen am ñu leen di dimbali ndax ay gone ngeen kër gi benn mag nekk fi faw ma toog fii gérer kër gi xool seen i dugg ak seen i génn ak seen i emplacement. ah. waaw Ndeye ah. dama am sa yóbbante de.

courage. buutee nag ëmbal na ay la. Appartement de Loufeigel, Loufeigel. Appartement de Loufeigel. Fay ñu gën mus ñëpp. fucking me. Ah, ah, ah, ah. Dañu foog ne ñoo mus ñëpp. Ndey Njaay fucking me. What ñoom ñaar fakki ni